ba jeex na maaleykum salaam agression maar di ay tribune yéene kaay ne en tout cas ca Bourguiba de ak Gédo ak boulangerie jaune waaw jàppal ni nag agresseurs ñu nekk di def ko lu leen neex eh ñoo tere doxi kon askan wi seenu soxla ginnaaw nag ba président Macky Sall kon ni wàllum couvre-feu bi lée daal dinay jeex ngir relancer na kon wàllum koom-koom gi lée économie te gis nga ci jamono joojee mbas ma waaw libération yéene kaay nee na mbas moome wàllaate gaa ngi gën a yokk de te ñuy dee juróom fukk ak benn ci ay doomu aadama ñàkk nañ seenu bakkan dañoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ñeenti dee ci ay gaa allahu akbar fanweer ak juróom ña nga soowee taas seen bakkan nañ ci xottu gerte source ané noo ñu nag Sénégal duñu dem parce que nag ñeenti doomu aadama kon ñoo dee allahu akbar léegi nag ñi dee toll nañu kon ci téeméer ak fukk ak juróom benn laa la wax cent seize morts fanweer ak juróom ña nga soowee taas grand place ne waaye ginnaaw covid da dee waaw suñu wàllum koom aar suñu moomeel naxarlu nañu nag ndorteelu campagne agricole bi lée chantage bi nga xam ne moom la opérateur u Sine Saloum yëlee daal di ko nekkee dama ne la xaalis fa dee moo leen gënal jiw ga moom la ñuy jël béykat yi nekk ki nga xam ne kon tiit nañ ko ni le waaw moo tax nag ñu riir daal di kon wutali marché yaa fa la ñuy wutee jiw de maa la ko wax te gis nga njëgal jiw googee waaw ca luuma yi ngay dox ci diggante 750 ak 900 daanaka ñaari téeméer maa la ko wax de yéene kaa gi amul ndey gi nga xam ne nag maanaam moo am ci wàllum jiw googee dugal na kaw malaise goo xam ne kon maar day taale le soleil yéene kaa ne Macky Sall ngeeg ay sàncay bees de 24 heures yéene kaa ne moo taxit vacances amul Macky Sall nee na ren vacances amul liggéey rek laas dama ne la juróom benn weer yoo xam ne Macky Sall nee na kon amul teggi tànk laa la wax maa la ko wax de natar na tar na tara tara tar yëkkati waat nag suñu wàllum koom-koom gi lé tribune yéene kaa doomu jàngoro ji de waaw moo tax nag ba vacance su gouvernement kon amul ren ji lé direct news de maître Omar Youm de waaw dañu koo régler ni montre moom bu la ne bii la heure boobee la source aane kon de uute directeur ressources humaines de bu ministère de la santé Ibrahima Soukandé la Diouf waaw waajaa na xëree dëkkal mardi tali dama ne la moom moom moo tax laa lay wax nii dem waaye Ibrahima Soukandé a Diouf mi lée ana fu mu xanaa ca Fatick jege ñaale président Macky Sall la dee lu ko neex def le quotidien yéen a kaa ne tubaab yi dee bañ defee lu leen neex ba nuppi waaw Sénégal tontu nañ leen de ubbiwaat nag wàllum jaww ji le kon avion yi daw Ndakaaru ngay jël joob dal nañ kon ci kaw espace Schengen baax waaw Sénégal dee ku leen ko timbax ñu rimbax la ko tubaab yi nee nañ duñ fa dugg ñin tam nee nañ leen ci dugg loolay dëgg léeg si ko yéen a kaa ne waa Gabon leen may visa loolay dëgg de yéen xoolal ma consulat u Sénégal ba nekk ca Milan gay waaw ay problème lu dul jeex looloo tax nag ba Amadou Ba ministre affaires étrangères té woo na ñëpp nee na nag ñëpp ñibbisi a la wax consul ba ca boppam roqoyee baax nee nañ ko ñibbisil ñëw laaste dañuy taxa-taxatee suuf sa nag ca diwaanu Sinja waaw askan wa ca boppam juróom-ñeen fukki hectare yi nga xam ne kon moom lañ jébbal may sa ngom nee nañ du ca dal Babacar Ngom de waaw Sedima gam jiite ca coowul suuf sa en tout cas bateau bi nga xam ne nag moo ne ci biir géej gi te waa Turquie jox ñu ko dee ci ndakaaru njaajël jóob waaw wàllum courant bi eh. ah. contrat ba ca boppam lëndam la lool Omar Faye leeral askan wi dee ci évidence Sénégal waaw nee nañu bateau boobee ci boppam kon moo war a ñibbi tey wàllum courant bi courant boobee termine yéen kaay nee na aar li ñu bokk ak ñoo lànk waaw daal dina ñuy naqarlu contrat bi nga xam ne moo dox ci diggante Sénélec ak ak gi le ñoom amee ndiir ah, ah naxarlu nañu dee ni waa GPS taxawoo ndax amee ndiir ak ña ma àndal dee nee nañu waa GPS googee caxat-caxatee alalu askanu la ñu def ñeen fukki at ak ñaar yi yëpp loolee la ñu dëkkee sans aucune transformation nag laa la wax mar di Italie critique yéene kaay ne en suba dee la ñuy daaneel marché Sandaga yaa jum wala maa jum ma ne loolu am looloo tax na fi mu nekk nii ba bako lambaay dee foo sànni mbatt mu tak gaa ñaa taxaw de dëgg la commerçant yooyee nag nekk ca Sandaga la ñuy naxarlu xanaa ci seeni kaw néew la ñuy jaar de réew mi quotidien xam ne a féete ginnaaw ñu nekk ca camp pénal ak ca a keroog waaw ba mu faloo ak léegi ni lée lu bëree bëri lu ñu doon xaar ci moom yaakaar daa tas gis nga deuxième alternance ba mu amee ca waaw yaakaar bëri woon na lool waaye France daal di xideen laa la wax dama ne la kaay ma limal leen Macky Sall woon dana jëlee nag maanaam ci mandaam bi la juróom juróom-ñaari at def ko juróomi at France dal di xidéen moom Macky Macky Sall ne woon état de droit liberté France dal di xidéen Macky ne woon la patrie avant le parti France dal di xidéen waa këram dong la ca dugal wàllum justice bi le France dal di xidéen dama ne la Macky Sall 2012 ba 2016 lu toll ak ñeent fukk ak ñaar ci ay militant parti démocratique sénégalais dugal na leen ci biir kaso wax allahu akbar la ilaha a ci mairie bu Ndakaaru Njaajël Joob ñu yëngalaat dossier Ndiaga ne woon dana wàññi gouvernement bi te def ko ñaar fukki ministre ak juróom France daal di xiddeen cay Macky Macky ne woon danañu indi coppite te conseil constitutionnel France daal di xiddeen cay Macky Macky dugg ca assemblée nationale gëlé jëlee groupe parlementaire 10 yóbbu ko 15 cay Macky coowal faux billets yi lée ak député Macky Sall bi Seydina Fall bugga seli fan la mujjee furaas daal di xidéen cay Macky coowal pétrole baa ngi ni lée ak Aliou Sall mi dara xam ak ñoom Frank Timis ana fan la mujjee furaas daal di xidéen cay Macky sur quotidien coowal scandale yi kon ci Macky Sall ba mu ñëwee ak léegi ni lée la ko jeexalu ko maa la ko wax cay Macky réew mi quotidien coow la am ca port autonome de Dakar de waaw lu tolloo fukki milliards ak ñett daal moo dox ca diggante liggéeykatu port accord yooyu yee ak nguuru Sénégal treize milliards la ilaha illallah cay man milliards yi lée bari na <laughs> waaye nag xoolal milliards yi ak lu ñu bari bari bari bari bari bari bari bari bari du tax ñu fàtte pétrole bi parce que suul gaz du ko tere